émission bi. juste dafay dox ci football. maanaam wane li nga xam ni carrément tey moom ngay tax nga yàq sa temps fii nii. c'est sûr waaw parce que jàppewu ma ko yàq temps sax mais juste dama bëgg tey xam lan ngay dund ak booy ak lan moo la motiver ak maanaam lan nga soxla. aussi tamit. D'accord, euh, merci bien. Vraiment, déjà, je suis vraiment ravi de vous voir aujourd'hui parce que ça fait plaisir. C'est ce qu'on cherche. Nous, déjà, on essaie de travailler avec les enfants Aujourd'hui, c'est vrai, c'est pas facile par rapport aux, aux, aux grandes catégories, parce que les, les, enfants, comme vous le savez très bien, c'est pas facile. Mais on essaie de faire le, le, le maximum, parce que déjà on a l'amour, c'est ça, qui, ça d'abord qui compte, ouais, avoir l'amour. Et déjà, on a l'amour de ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est Ce qui, nous, ce qui nous fera plaisir, c'est de voir les enfants demain évoluer, dans les grands clubs. Et je pense qu'en tant que coach, c'est ça qu'on qu cherche. C'est ça qui nous fera un grand plaisir, de voir les enfants demain dans les grandes équipes, dans les grands clubs. Voilà, donc c'est ça notre objectif aujourd'hui. wax am na solo parce que football boo si nekkee bëgg-bëgg mooy tax nga nekk si te bëgg-bëgg boobu noonu mooy tax tey jii nii lépp lu mu la tegoo rek da nga koy tegoo ndax euh, man dund naa ko te jàpp naa ne yow it dund nga ko moo tax nga nekk si club bii nii euh, ñu lay remercier di la wax ni émission sport référence moom la tudd day wane référence yëpp te jàpp naa ni tey jii nii am nga si club bi ñi nga xam ne ñoom ñooy doomu club bi wala ñoom ñooy avenir u club bi tey ji nii booy ñoom lan nga leen mën a rassuré lan nga leen mën a assuré parce que parent bu nekk bu bàyyi ay doomam nekkul jàng football kese da ko war a mën a yar war am li nga xam ne mën nga koo def si moom ba bu demee kër ga sax bu nekk dinaa woo sa coach bu defee dara dina mën a yaru kon donc loolu yëpp ñu ngi koy xaar ci yéen di ko ci coach yi ak euh, lan nga mën a wax wayjur yi nga xam ne ñoom ñoo jox seen doom ñoom ñoo leen jox seen ay doom comme tey lan ngeen mën a inc maam lan ngeen mën a dugal si biir xelu xale yi li nga xam ni nekkul sax football mais di nga leen yar ci leneen voilà. merci beaucoup voilà euh, tu m'as posé question yi nga xam ne dafa am solo bu baax parce que déjà les enfants. comme lu ñu waxee rek c'est tournevis parce que par rapport ce qui les fait rentrer dedans loolu la ñuy c'est ça c'est ça ñoom la ñoom loolu hmm. donc on ne se concentre pas sur seulement le football mais aussi l'éducation parce que ça fait partie hmm. qui dit football dit hmm. parce que on essaie de faire le minimum moi personnellement c'est ce que je dis aux parents et eux le savent très bien d'abord euh, beaucoup de personnes le savent ici quand même les je te renvoie éducation, c'est-à-dire euh, on, on, essaie de faire le tout, le gros. Donc c'est ça. par rapport à quel est l'avenir, quel est l'avenir pour les enfants. C'est vrai, ici, euh, comme le monde a 5 même moi j'ai gagné dans le club, j'ai joué ici presque 5 ans dans ce club, QSC Qualité Sport Club. Donc peut-être que si vous tapez dans le net, vous, le verrez. Voilà, donc j'ai fait 4 ans dans le club ici. Euh, on a pas mal de joueurs qui, ont évolué ici, qui sont aujourd'hui dans, je pense, Sacré-Cœur et même Voilà, je pense que tout le monde connaît Donc euh, c'est ce que nous on essaie de faire parce qu'on n'a pas les moyens d'amener les enfants en Europe, mais on essaie de faire le, le, le minimum, au moins de les amener dans les grandes équipes euh, du Sénégal, comme Djambar et Génération Foot. Voilà, c'est de parce que euh, vous voyez le terrain c'est pas facile. Voilà, on n'a pas les amener dans les terrains synthétiques ou gazonnés, donc on essaie de faire notre minimum pour euh, vraiment les encadrer. C'est ça déjà l'essentiel. Leur donner les bonnes éducations, de partager notre savoir. Voilà, et le reste, euh, ça viendra, quoi, Inch'Allah. Voilà. Euh, coach, je lay jaajëfal di la wax merci di la wax du courage aussi tax yor xale dafa metti waaw merci beaucoup nous aussi on vous remercie parce que ça c'est pas c'est pas c'est pas facile évident donc on vous remercie beaucoup et je pense que vous je pense que vous allah Inch'Allah Inch'Allah dinañ ñëwaat merci beaucoup ballon bi mooy wax c'est le ballon qui parle donc il faut ngeen am disponibilité en en zone bi partenaire pour sa waay dañ koy dañ koy may solution solution mooy il faut demander dans su ko mën a fu muy wax nii donc su fekkee un partenaire a un ballon mais demande dans l'espace vite boo xam ne au moins c'est une possibilité de passe te saa boo réglé si diggante nëbbu si ginnaaw waay c'est pas possible ba pare éviter de courir n'importe où bu ballon bi xool di xool positionnement ballon bi su en face attaque ñëpp ay demandoo. Face devant si aussi ñëpp war a demoon ñoo ñëwandoo pour marquage il faut pas une personne marquer rek une balle parce que dañ koy dañ koy tóoroo dañ koy passe balle ñuy accéléré daw fii daw fii daw c'est pas possible donc dañuy concentré lu ngeen di def ngeen appliqué wu le ballon dañ koy jàpp comme de l'or il faut pas perdre le ballon n'importe quoi ay quand n'importe pas possible parce que chaque fois bal da ngeen contre seen kaw mais quoi soo dëkkoo benn ñaari ñetti yoon seen kuréel booy donc ngeen garder gis ko D'accord les gars Jouer simple, éviter les paroles, ça vient, c'est normal. Mais pour le prix, les casses, je ne peux pas voir ça. D'accord Soyez des bandes d'amis, des communs. Donc, solidarité, le taoubi le gars. Allez, Allez. maa ngi tudd Boubacar Sidi Diété waa si entraîneur de football voilà donc euh, ici au Parcelles Assainies à Dakar ñun suñu tànk. Mhm. tey jii nii dafa nekkoon euh, mhm. topp école de football yi. oui centre yi. oui maanaam lan mooy seen objectif. ak mhm. aussi tamit euh, maanaam lan la ñu pare pour. Euh, assurer ko xale yi nga xam ne moom la ñu yor seen avenir. bon comme on dit ah, mais nous c' est suñ nous ça veut dire que c' qualité sport club mooy sama centre bu ma formé depuis 2012 donc ñun suñu objectif c' est encadrer les jeunes. surtout les jeunes de la de ce terroir là au niveau des Parcelles Assainies ak alentour yoo xamante ni da nga leen di jàppale dans le domaine sportif donc ci lañ gën a nekk di xool nañ leen permettre ñu mën a am des plateaux wala am ay chances yoo xamante ni pour suba mun a persévérer dans ce domaine la parce que comme on dit beaucoup de personnes c'est des footballeurs mais lan moo des mooy l'encadrement da leen mën a encadrer pour sauvetage qu'il soit quelqu'un xamante serviable ñoo xamante ne tey dinañ mën a jëriñ askan bi jëriñ seen seen seen seen waaru jur yi ak euh, tout monde quoi donc euh, ci lañuy jéem a xeex ñu xool nu ñu leen di mën a indee quoi voilà. Mhm. maanaam tey jii nii objectif mu ngi si. Mhm. rêve mu ngi si. Mhm. mais tey en dehors du football. maanaam lan moo tax nga nekk médecin. ba pare. maanaam. dellu si waat ci football bi. non comme on dit ah man bon depuis le bas âge j'ai été footballeur donc euh, nekk si loolu nekk dans le domaine du médecine de la médecine aussi parce que ñun dañoo am association boo xamante ni sportive et culturelle boo xamante on a tout fait pour avoir une infirmerie pour mën a aider la population par rapport à leurs soins les COGF la ko ñu leen di jàppale donc à cette base là on a cru au moins. Euh, créer une école de football boo xam ne tey on va prendre la santé des joueurs d' ak yenn école football yi nekk au niveau des Parcelles Assainies ñu ngi leen mën a accompagner par rapport à nos amis qui sont là des fois médecins des infirmiers des des yoo xam ne pour au moins infirmière pour ñu leen jàppale si les cas de petites blessures ak yooyu. parce que on a constaté une chose aussi et surtout au Sénégal fii beaucoup de centres de football wala d' école de football ñu bëri des fois du ñu am benn infirmerie bu ndaw a suivre donc parce que des fois suñu gaañoo ko exemple tey jour yu bëri suñu blessé wala machin du am un ko gis championnat bi nag bu nekk comme maa ngi Cameroun donc de suivre joueurs yi par rapport à leur yoo xam ne dafa baax tamit école football yi tamit di am possibilité ñoo xam ne ñoo xam ne daañu nekk dans le domaine de la santé wala dañ doo xam ne tey su gaañoo wala yooyu au moins les premiers les premiers soins dañ ko mën a def donc euh, les aides et tout c'est important parce que mooy tax tey le bien-être du du joueur mu mën a évoluer correctement pour suba. parce que yenn blessures yu ndaw yoo xamante ne joueur mën na ko traîner loolu mën na ko indil ay dommages yoo xam ne tey mën na gaare carrière am parce que am na yoo xam ne suñ si tollee ci la yenn blessures di yeewoo ak yooyu. donc soo amee un jeune surtout un xale bu ndaw boo xamante ay 13 ans 12 ans 10 ans wala yu mel noonu jour di blessé ak yooyu tu en charge nga seen évolution seen ak lépp. donc ñu lay moo tax ñu on s'est battu pour au moins tey def fait tout pour au moins euh, avoir ce ce plateau là pour permettre booy mun a épanouir correctement. beneen question bi. Mhm. mooy euh, bi demee ci terrain bi. Mhm. gis nañu xale yi ku si nekk moom. sol na lu mhm. correct. muy équipement yi nga xam ni. defaral na leen ko. sa logo am lépp. Mhm. léegi maanaam loolu. Mhm. ban problème nga siy am. Mhm. ba xam soxla nga si jàppale. wala lan nga si soxla. waaw loolu ko lu ma jot a expliqué la ah nu mun naa ne sax ñun vélo vélo la ñuy def. parce que dañuy dem par rapport suñu propre moyen xale yi ngeen gis ñi ñoo xam dañuy am na ñoo xam seen am mag yi tey entraîné wuñu sa euh, poussin yi ak yom kii ñëw yi ñoo entraîné tey euh, par rapport à notre propre moyen ñun ñoo koy def ñun dirigeant yi président comme man maay président équipe bi en même temps l' entraîneur principal parce que comme diplômé d' entraîneur donc ñu ñooy jël cotiser wala def suñu propre xaalis jëndaleen lay mayo ñuy sol nii chez nous ici c' gratuit booy ñu bëgg ñoo di entraîner les plus méritants ñoo xam ne temps aux entraînements dañ leen koy may demanduñu un franc aux parents matériel bi fi nekk c' est notre propre ñoo koy jënd moo suñu un franc aux parents pour ñu mën mais tamit euh, il est temps aussi ñu bàyyi si xel si loolu parce que le football dafa toll foo xamante ne mën nañu sax entreprise la boo xamante ne tey ku nekk dafa war indi sa pierre pour au moins a développer donc si jàpp ñu mun a dem parce que nous on prévoit de beaucoup de voyages parce que moi je de Ziguinchor te xalaat naa yóbbu booyee au niveau de Ziguinchor benn camp de vacances et aussi à Bambey aussi parce que le centre là QSC Qualité Sport Club j'ai ouvert yaa a mon frère qui est là-bas Seydou Diété qui mu ngi gérer équipe bu foofu tamit y' a les les catégories yëpp am mais équipe féminine am na fa. donc déwén comme saturation aussi au niveau de la fédération Sénégal fii dafa dafa fees on veut jouer en championnat catégorie junior et senior et peut-être peut la équipe féminine. donc moo tax on a def tout pour au moins aussi voir s'il y possibilités par rapport à la mairie de là-bas pour au moins transférer club bi foofu pour ñu mën a jouer en championnat parce que loolu c'est parce j'ai l'habitude de prendre des équipes de d'autrui yàgg naa jël équipe jàmbur di si financer nekk entraîneur principal ak yooyu yëpp nekk président nekk financier bailleur du jouer en championnat donc te vois tous ces licences là c'est c'est de club donc yoo xamante ni c'est en senior en plus des juniors seniors yoo xamante ni damay yor ay joueurs yu bëri depuis des années bon di jouer mais c'est un département boo xamante ni dama koy def parce que sama dugal mais Dakar Donc, faut, soit j'optais aller à Ziguinchor, j'ai fait un championnat, ou aller à Bambay. Donc, cette fois-ci, j'ai décidé d'aller à Bambay voir Nulil Mounodiapole aussi. Comme Bambay, il y a un enfant, j'ai joué à la Massas de Bambay depuis en deuxième division. Donc, c'est euh, xel chalier pas qu'il faut Et on a une maison, c'est une cœur, c'est une pas qu'il faut Donc, pourquoi pas Moi, je suis Dakar aussi, on a gagné Waouh. Coach. Oui. Moi, euh, en tant que joueur, mm-hmm. euh, coach bu toog. Mhm. man à chaque fois damay euh, xalaat li may def équation. Mhm. coach maanaam nan lan lu metti mhm. lay dund. ci biir club am parce que nekk jour leen rek la la sant man dama ko jàpp lu yomb. mooy xëy suba am nga heure bu muy jeex li si des yaa moom sa bopp. mais coach tout le temps moom mu ngi si club bi. poosam mu ngi si. yitteem mu ngi si temps mu ngi si. maanaam coach maanaam tey. Hmm. nan nga maanaam yan yan problème hmm. maanaam lan lan moo la mën a sonal hmm. ak lan mu nga xam ne mooy jël sa temps si biir kii bi si biir euh, centre centre bi moi je dirais que gis nga euh, l'application moo ça veut dire qu'au niveau du terrain loolu ça ne prend temps parce quelque chose boo xam ne nga ko mémoriser ba pare ñëw rek tu le mets sur le terrain gars yi appliqué mais lu am sens c'est la gestion du groupe c'est très important parce que un groupe boo xamante ne des fois pour leen gérer canaliser leen c'est pas simplement terrain yaa en dehors du terrain. ba pare tamit euh, un coach bu nekk balaa ngay dem terrain il faut préparer ton tes tes séances donc yàlla a le planning y a le truc qu'il faut faire donc loolu ça prend plus de temps possible ba pare jour bu nekk war nga xam. tey euh, capacité am. Hmm. mën-mënam lan la mën a apporter si zone bi si placement bi si lii c'est en fonction de ça des fois nga mën a euh, élaborer sa planning de travail wala sa exercice de travail bu nga war a def du jour pour mën a xam da le match exemple du week tu vois donc ça c'est des réflexions boo xam ne am donc psychologiquement intellectuellement ti dois être prêt donc ba àndoo balaa ngay dugg terrain war nga mën a xam ne exemple tey système bu mu mën a indi tey exemple joueur bi war na ko mën a apporter donc en fonction de ce joueur là fekkee tey y a une possibilité par en fonction de ce joueur là tu essaies de en en ak yeneen donc loolu nga mën a def ba pare soo egg terrain application rek la mais on on on entraîneur s'il ne travaille pas chez wala en dehors du terrain il ñëw terrain day rek. donc day tâtonner rek ñëw rek teg ay ploom wala machin tout le monde peut le faire mais tey comme on dit la gestion du groupe aussi ça fait partie le mental ça fait partie il tous les aléas qui sont là dans le domaine de la santé machin diététique aussi ça fait partie parce que ñun tam ñeneen dem la yoo xam ne bokkul ci coaching mais des fois day jouer donc parce que le le le médecin du club wala l'infirmier du club wala l'aide du club euh, am lu am na part xam ne da ko war a ñooy joindre say bout parce que des un joueur peut aller chez lui am si problème yi dul jeex il vient problème boobu da koy indi euh, transférer ko au niveau du terrain day am mais donc si tu as toi tu pas euh, euh, un peu psychologue wala quelqu'un de ressemble wala machin tu vas dire que ce joueur passe à côté du am du am suivi donc tu vas perdre ce joueur mm-hmm. donc il faut de mm-hmm. aborder une équipe joueur ak yooyu des fois nga gis ko ci yoo xamante ne des fois benn joueur di réewoon wala def leen loo xamante ni mu koy pardonné wala ndaw yi la Mhm. mais si c'est à taper sur la table aussi il faut le faire donc loolu yëpp ça fait partie moo tax être un coach c'est pas simplement yow sa sifflet mën a teg say flow mën a kii dem non mhm. daa am paramètres yu bëri quoi yoo xamante ni am na fa donc il euh, faut tenir tout ça en compte mhm. donc man côté boobu moom laay laay gën a waxtaan sama mbokk coach si bàyyi xel c'est pas simplement au terrain donc c'est en dehors du terrain et moo tax soo déggee au niveau des télé wala gars yi di wax ne ñu naan cet entraîneur là mënul gérer groupe am wala euh, mënul gérer son son son vestiaire. Mm-hmm. lool leen loolu leen doro. Mm-hmm. parce que chef ak joueur dañuy nekk foofu ku nekk nekk si kii am ak yooyu quoi. c'est mon ami coach du Maroc là moom mooy <laughs> yéen comme ça là. donc c'est ça euh, quoi excusez moo tax. Mm-hmm. Euh, question bi nga xam ne moom laay mujjee. Mhm. mooy lan ngay teg si loxo yaayu xale yi ngay wax lan nga leen di rassuré. bon man par rapport sama boy yi ma yor xam nga man euh, les équipes les joueurs les jours qu'on a comme Kargo dañuy dem dañuy def benn euh, bon demande parentale. Mhm. boo xamante ni dañuy aborder parents yi ñoom seeti leen des fois. ne la ah sa doom bëgg nañu entraînement wala indi nga sa doom ak yooyu. Hmm. mais ce que l'on quoi il faut que d'abord vous donnez vos hmm. mi papa bi mi yaay bi. au moins que signe quelque chose bi war ko tey tey sa booy su jógee sa kër sa nouveau responsable. Hmm. parce que ñooy deuxième parent xale yi. donc ñu xool ñu leen di jàppale par rapport à mais li ñuy wax seen soxna yi c'est quoi vos enfants sont dans de bonnes mains. parce que ñun comme yéen dafa ñoo dimbale am nañ benn infirmerie boo xam ne sportif boo xam ne jàppale booy par rapport seen santé seen blessure seen kii mais lenn lépp loo xamante ne tey c'est extra sportif loolu parents yi la des ñu bëri ñu liggéey c'est rare nga gis parents jigéen yi dem liggéey surtout ici lu ñu la wax mooy lenn on fait tout pour au moins encadrer les par rapport seen jàng. parce que la priorité chez nous si jàng la. parce que jour boo xamante ne même même paradoxe même su fekkee ne jour bi n'est pas fort exemple mu aay si football ak yooyu te nga yóbbu ko test feneen mu en extérieur exemple en Europe machin yooyu des fois tey mën nañu ko lakkal anglais wala lakkal ko français wala ñu ne fais ceci wala ma ne du ko xam. Hmm. donc il est là xool ak yooyu quoi ñu bëri dañuy perte seen euh, test yi ak yooyu à cause de ça. Hmm. parce que mënuñu mënuñu communiquer wala mënuñu kii loolu ça joue.

donc jàng ça fait partie toujours bâche bu ñu ne ñu nekk nii priorité jàng la. moo soo xoolee beneen groupe bi sax entraîné nañu tey parce que ñenn ñi ñu ngi jàng ñi ngi collège ñi ngi lu am solo mooy na parents yi xam ni ñun dañuy encadré seen doom comme suñuy doom mi ngi encadré. donc dañu leen jàppale par rapport à des dañuy laaj parents yi booy tey am nañ moyen bu baax est jàng nañ est ce ñu ngi feebaruñu est ce que lii tout le temps en communication avec si on boo xamante ni tey exemple ñaanum ko yàlla école buissonnière wala machin yooyu non on sévit dara la ñu sax on dit le gosse ne s'entraîne pas minimum une semaine yoo xamante ni bëgguñu ko gis suñu terrain tant que il n'a ah, a reprendre le gosse mm. c'est comme ça que que que ñun ñi ñuy ñuy ñuy liggéey ñuy fonctionner waaw mm. uh-huh. ah, loolu loolu moom mm-hmm. kon xelu parents yi dina dal mm-hmm. parce que parent bu nekk moom da bëgg sa doom ci lépp lu muy nekk avancement am ci oui ndax euh, yow la nga bëgg moom mu koy def école mm-hmm. nga gis keneen ku la ko yaral nag parents parfois dañoo xaw a ñu tayal. Mhm. da ngay jël sa doom am na ñi nga xam ne leen di dàq sax di dem pour mën a noppal. waaw waaw mais alhamdulilah. parce que soo xoolee ba gisoo léegi nii am na benn note xale bu indoon xale yi benn notam. Mhm. parce que chaque fois on contrôle les enfants yooyu. Mhm. et benn note na ko noo passant parce que actuellement vous donc euh, sa waay mooy lool. <laughs> donc léegi la ma ko indoon si moi on dirait qu'on sera un peu hypocrite. Ouais. Pourquoi Parce que ça doit intéresser quoi Avoir une, centre, boy, d'union d'entraîner, mm. mais le bien-être surtout des enfants par rapport à ce qu'ils duñ si préoccupé wu c' est pas bon donc loo mën a jàppale parents yi tey pour ñu sawar ak yooyu mm-hmm. yooyu gis nga terrain dafa am trois parents yoo xam ni ñu ngi taxaw surveiller seen doom yeeg yooyu ñëw parce que dañoo xam lu ñu leen di apporté kon mm-hmm. da jaral nañ sax mm-hmm. donc vraiment ñun moom lañ si insister léegi coach. Mhm. man euh, dama bëgg nga lancer benn appel. Mhm. wala li nga xam ni sa moroom coach yëpp wala sa moroom président yëpp. parce que mhm. vous vous êtes. Euh, président de club en même temps coach. parce que tey bi ma ñëwee dama fekk si sur le terrain. nekk ak xale yi. nekk ak ñoom dugg si biir nekk ak ñoom bon. léegi fédération Sénégal lan ngay xaar ci ñoom wala yeneen club yi nga xam ni tey. bu ñu seetaanee lii nii. lan lan nga leen mën a lancer appel tey jii ñu ñeme loolu. Mhm. mën a ñëw. Mhm. seet si yenn jeunes parce que jeunes ñoom loolu mooy seen rêve. Mhm. parce que xam naa ni carrément. vous vous n'avez pas les moyens tey jël xale yóbbu leen directement à à l'extérieur. kon donc am na yeneen club yu mag yi fi nekk. kon donc dañoo war a mën a ressourcer aussi. centre yu ndaw yi nga xam ni. Mhm. ñoo nekk mhm. au niveau de Dakar wala si sous-région bi. d' euh, loolu man lu ma si wax rek mooy euh, la fédération sénégalaise de football dafa war a jàppale la petite catégorie. Mhm. mais par contre il faut ngeen xam benn affaire parce que la petite catégorie aussi ils sont vraiment organisés avec euh, le président Alpha Dabo. nga xam te ni créé la COSEF. bon COSEF l'école c'est qui regroupe parce que tous les écoles football du Sénégal. donc ñu ngi si région yëpp. loolu dañoo nekk si benn domaine boo xamante ni léegi mu am ay démembrement comme ay CODEF ay COREF ak yooyu yëpp am na fi comme ñun c' est COSEF des parcelles assainies ci laa nekk parce que maay vice président bi y' a Limamou Limamou Mbengue qui est donc euh, de regrouper les 31 écoles de football qui sont au niveau des parcelles assainies de compétir de jouer en championnat de jouer en coupe du Sénégal pour au moins mun a avancer donc ci la ñuy def par rapport à ça la am ay entre-aides yu ndaw yoo xam ne dañ koy def mais li may déplorer mooy aide du jóge si kaw pour ñëw des fois c'est nous qui participer par rapport suñu inscription yi ak yooyu mais y a rien qui tombe boo xamante ne tey école football bu nekk day gis boppam temps en temps la la mairie mu joxe subvention boo xamante ni comme daaw dara gi chaque école football boo xam ne peut am benn cinquante mille tu sais moom gérewul équipe hmm. tu peux avoir une trois cent joueurs trois cent équipe joueurs ba pare di donc man li ma mën a wax mooy c'est la fédération damay bu ñu ni su fekkee mën a relancer waat loolu par rapport à euh, COSEF ñu xool euh, ak euh, tous les écoles football yoo xam ne dinañ leen mën a subventionné jàppale leen pour ñu mën a jàpp parce que ñoom ñooy grenier boo xam ne day suba mën nañu ne apport par rapport au club qui sont là ñuy mm-hmm. club national yi D ba de 1 yi mm-hmm. donc suñu leen encadré correctement normalement je crois que ça ça va y lenn aussi tam may yokk bien vrai maa ngi si école de football maa ngi si championnat. Mm-hmm. lu ma si yokk mooy aussi dans ce la là y' a beaucoup beaucoup beaucoup de d' escroquerie. Mm-hmm. y' a beaucoup de problèmes boo xam ne day am. Mm-hmm. des fois euh, des fois day dal ñun ñun président de club wala ñun entraîneur. loolu tey dama ko fiy wax parce que man su ma gisee may wax sax daf ma dal. des fois tu peux voir des jeunes yoo xamante ne nga leen encadré ñu mën football te talentueux mën seen lépp parents yi sa ñooñu ne la sa sama doom tukki. il y a deux lenn nga gëm yàlla ne ak am joueur bi na demal boppam lu mu am xam mooy loolu. mais des fois yoo xam ne loo xamante nga xam ne boobu da nga ko bëgg a jàppale ci des partenaires yoo ne ñu doomu jàmbur parce que du club bi moo leen soxla mu nekk ak l'extérieur des fois c'est le joueur boo xam moo bëgg dem parent day aw je peux les moyens pour booy voyager hmm. yow mi dañuy jaar par rapport yow président de club wala dirigeant de club ñu ne ok jàppale nga si yow la des fois nga tombé si ay escrocs. ay gens malveillants yoo xam ne tey da leen di ji ok ñu ne la laaj xaalis am ñuy laaj xaalis. ay faux recruteurs waaw des fois tu donnes des fois da ngay jël tous les ah, ba nga ne loolu la. nga vérifier ñu lépp ñu dëgg la mais daa am boo xam ne des ñu def la ko. waaw toi tu envoies l' argent ñu jël jeu bi ñu defal lépp moom yow war a dem affaire bi capote les parents tombent sur toi. Mm-hmm. c'est toi qui paye. Mm-hmm. soit ba prison sa xaj na fa lu ne xaj na fa. ma dal. Mm-hmm. est-ce que nga jàppale ay joueurs wala nga xam nga da ngay def lépp ñoom mais finalement liy fekk la ci mais les gens ne regardent pas la moo li fekk dañu naan ok complicité la wala a comprendre suñu la comprendre waaye léegi la loi qui vient maintenant on te dit on te défère de est-ce que man damay ñaan des fois yi ñu si comprendre ay nit mm. wala des ñun président de club wala dirigeant de club wala euh, sportif yoo xamante ne des fois ñi ngi aborde yooyu mm. vraiment ñu bàyyi si xel parce que c'est des pièges yoo xam ne daf ñuy dal te duñ ko tey da nga dugg mais après ñun duñ comprendre waaw ñoom ñëpp a yem la wax. on l'a donné jox nañ ko keneen demul kon nag na nga fay. wala dama koy tëj. waaw c'est dur. Mm-hmm. des fois nga am père de famille wala kenn koo xamante ni vraiment parce que ñun ñun lii la am licence la am tey. tey jour bu ñu bëgg dem ak ñu ne ok tey su demee ci la ñu am dara parce que y a des pour cent wala 2 pour cent club formateur da am am développement. Mm. donc tey soo soo gisee koo xamante ni am na moyen pour dem nga am dirigeant boo xam ne wala wala euh, agent wala représentant mu ne ok ma je peux jàppale kii nga wax parent parent bi d' accord ba ngeen def loolu boobu si signé alhamdulilah. Mm. ku nekk da gis moom. waaw cee content mais tey su fekkee ne loolu jaarul si yoon rek kooku escroquerie wala problème rek ça tombe sur toi. Mm. donc il faut qu'on fasse vraiment attention là-dessus man su may alerte laay def parce man soo gisee may wax ma koy wax ouvertement uh-huh. parce que dal na ma. des fois nga dëgg ne jël na xaalis jàmbur def na li def na li te comprendre ñu situation bi lan la. Uh-huh. à nit da ngeen di xoolee ay bët yoo xamante ni tey c'est des escrocs wala machin ak yooyu non. parce euh, parents si ñoo lay teg la pression loolu mën a am par jàpp si jàpp si nga ne non non jàpp si ba la fin nga yërëm nga xool booy bi il bon nga gis kenn koo xam ne vraiment il peut le faire nga xam ne mus na ko defal des fois da nga may tous les preuves mu Je comprends pas nga club bi club na certes je l'ai fait le papier et tout mais dama intram kii bi donc on perd donc moo tax ma ne vraiment ñu bàyyi si xel si loolu tamit alerte la bu ma koy jox suma bopp jokk tamit sama mbokk coach yi ak euh, président de club yi tamit ñu bàyyi si xel voilà donc euh, des fois on est on est des victimes mais il faut comprend mais tu sais justice moom su lii la lii la ça passe comme ça donc doo si mën dara tu es obligé voilà après les gens moom écho bi ñuy am mooy non non la jël dem fekkee ne rien ne dara du si loolu bëgg bëgg rek la bëgg jàppale nit ki bëgg jàppale sa bopp parce que tey nit ki su demee tey sama amee des fois jour yi ñu la xam moi j'ai beaucoup de jours yoo xam ne c'est des problèmes maintenant lu ñu sa xam kii rek nga si nga maa ko yoroon fi la nekkoon ak loolu kese coach woo la la mais ñoom millions yi machin si yow lañu dal mais tey si ça passe bien xam passe na bien d' accord mais keneen si ça passe mal du ñu loolu non non yaa ko def defoo ko nga nekk nag si des problèmes sa parents yi di jóg di daal jëm la jàppale fay bi wala yow soo ko mënee fay ndànk-ndànk suñu la comprendre ñu may la sax nga fay ndànk-ndànk suñu la comprendre lu dem non yaa war a def tu devais faire ça c' est pas ça c' est pas ça allez on t'a fait sa mbokk yi di jooy fële ku ne naan donc ñu bëri des fois dañuy dugg si domaine boobu moo tax may insister mag si wax di si wax di si wax. Hmm. parce que soo gis may wax nii parce que alerte la. waaw bàyyi si xel. donc euh, vraiment man je préfère ça léegi jour bu buy tukki na jël propre responsabilité am demam dem boppam. Hmm. benn wala club ñëw wala équipe ñëw wala ñëw gis ko boppam paasal ko boppam mu dem mais yow dirigeant de club wala kii bu si dugg dara bu si bu nekk un garant. waaw yaa ma boole ak moom léegi sax lay teg si loolu. Hmm. donc loolu tamit. cadre boobu dañ siy dal moo tax ñu bëri sax des fois seen école football yi seen santé dañ koy arrêté ngir loolu. parce que genre injustice bu ndaw la boo xamante ni c' est. c' a par contre aussi y' a des gens yoo xam ne dafa dañuy def yu mel noonu. jël xaalis jàmm tëdd si day am. mais y' a des gens yoo xam ne sont sérieux ñoom suñ ko defee parce que dañu lay woon preuve yëpp que fii laa ko dugal fii laa ko dugal fii ba yow sax nga gis yooyu yëpp. Mm. mais après ça passe mal. donc wax sama mbokk coach yi ak dirigeant yi ak président de club yi coach émission bi neex na. Hmm. waxtaan nañ feeñal mu bëri. te ñu lay remercier bu baax a baax. waaw lii émission bi. Hmm. mu ngi tudd sport référence. Hmm. parce que dañ ciy wane. ñi nga xam ne ñoom ñooy exemplaire sport. ñi nga xam ne ñooy exemplaire football. oui les coachs après ñoom ñu mën a feeñal seen ay jours. loolu moo ko taxoon jóg. kon ñu lay remercier bu baax. Euh, di la wax lan ngay tàggoo ak ñan ngay nuyu. waaw man damay tàggu ñëpp. remercier ñëpp parce que tamit euh, commencé par euh, ñëpp ñoo xamante ni tey jaar nañ sama loxo ba tey ñoo xamante tamit vraiment euh, ils ont espoir en moi gëm nañu gëm nañ sama liggéey maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm tamit samay ñaari waajur parce que kenn amul ku dul say yaay comme sama mbëri ni ñu koy waxee sama papa sama yaay vraiment ñuy dund ñu ngi si Ziguinchor sama xel a si ñoom bés bu ne ak samay frère ak tout le donc vraiment di di remercier tout le monde foofu laa mën a yem pour bañ tudd ñenn yi wala bàyyi ñenn yi tamit. waaw ku lim da ngay jëm <laughs> donc euh, loo loolu rek laa am quoi pour wax leen ko. Oh. waaw di remercier aussi waa Cambérène ah, parce que comme léegi yéeg nañ national euh, ligue ligue 2. Mm-hmm. maay remercier ñëpp qui m'ont fait confiance aussi. Mm-hmm. voilà donc les présidents les coachs et tout vraiment comme maa ngi seen encadrement bi. Mm-hmm. c' quelque wax ne foo foo remercier leen aussi. parce que ça fait partie quoi merci waay vraiment merci.